chers internautes enquête 221 dalal ak jàmm ëttu yéenekaay yi li mu ubbee tey xët bu jiitu ci observateur moom lañ leen di wax jour de vérité Lamine Diack Pape Massata Diack ñoom ñaar ñëpp nag ñu am problème ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy àttekat tey yoonal nekk ca biti réew ngir ñu xool ndax lañ leen di toppee ci wàllu koppar gi ñuy wax ne dañ ko luubal wala ci wàllu guerre dëgg laam déet dina leer ndax tey jiine la lépp di leer di procès bu nga xamante ne dañ koy ubbi niki ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier gi ñu lañ koy jeexal ëtt yéenekaay bii di Écho ñëw ci Abdoulaye Diouf Sarr jëwriñ bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram moom nag mi ngay teesante ak ki nga xamante ne nag mooy Amidou Diallo suñ ne Amidou Diallo nag nekk koo xamante ne nii moom dafa am lu soxe ci wàllu roño nga xamante ne nag matul moo waral feebar gi nga xamante ne moo sonal tey askan wi mel na nag nee nañ ci wàllu kit daal fi mu ne nii daal yu coombaloo la bu dul jeex bu dul xaaj waaye it nopp day darooti ndax xam nga ni ba tey ëttu yéenekaay bii di Écho ko daal di xamle ab médecin la waaye tamit dafay nekk ci wàllu cardiologie moom nag moo ne tu ŋaañ li nga xamante ne nii mooy tele ba amoon euh, foofu nga xamante ne mooy ca centre ba mel na nag da ko yóbbu këram rek da koy defar wala it da ko yóbbu këram ngir seetaan la ca mën a am mooy suñu plateau médical dafa mel ni am na foofu daal di suuxe ba tey ci as yéeni kaay Abdoulaye Daouda Diallo moom daal taxaw na tem nee na lépp li nga xam dafa jëm ci wàllub koppar da koy leeral faaw ñu wàññi ko ba mu baax ndax xam nga rek moom jiite moom da cee baax day faral di leer ngir rek askan mi mën a daal di bàyyi xel bu baax a baax yow mi Clean Day maître Malick Sall moom dellu si waat na nag nag nee na Matam daf cay wane boppam faaw tamit rek ñu daal di raxas ba mu set bale ba mu daj ngir rek gëcc yi mën a daal di dem ci wàllub alom bi lépp daal di leer Dakar Times si xëtam bu jiitu dellu si ci ki nga xamante ne mooy Abdou Karim Fofana borom mbëbës dafay defar wala da koy dindi la ca mën a am mooy ab benn entrevue bu yaatu bi nga xamante ne sekk na ko ëtt yéenekaay boobu ñëw na ci bu jiitu zone bi de ville nee yaatal waaye tamit àddu jëm ci euh, téeméeri logement yeeg lu teg ci yéenekaay bii di réew mi quotidien moom dellu si nag ci mbirum musa saar xam ngeen ni maître Moussa Sarr moom nag neexal nañ ko ci liggéey ju yaatu bi nga xamante ne defoon na ko waaye jëlaat na lépp rek daal di ko jagleel nga xamante ne nii mooy famille judiciaire bi ci noonu ki nga xamante ne nag moom moo di Chouz di Mbagnick moom daal rafetlu na bu baax a baax liggéeyam ndax nee daal koo xamante ne nii daray mbiccoo mbaaloo wala dara it ci li nga xamante ne rek moom mooy liggéey gu tey rek ci ëtti yéenekaay bi nga xamante ne mooy 24 heures chrono waaye chrono wu ëtti yéenekaay bi moom dellu si waat bu baax a baax ci ñoo lànk ñoo bañ ñoom daal nee nañ taxaw nañ càmm ngir gis njiiti réew bi waaye ca nañ koy gisee ki condition la bu jiitu mooy Guy Marius Sagna ñamu àndal ñu daal di ko fee génne démb lañ ko gën a xamale mu jaarale ko ci ABC médiateur de la République daal caa dellu si waat ci euh, émission bu yaatu bi nga xam ni amaloon na ko sunu naataangoo Vox Populi daal di àddu jëm ci li nga xamante ne rek moo xëy daal di def ab seetlu ma nga jëm nag ci koo xamante ne ni suñuy naataangoo la elma Allemagne la nekkoon ñu ne ko daal ba ñu xoolee say mbir ba pare da ngay dellu si waat ndax say këyit leerul saa waay daal di xaywee koo ci suuf daal di rek cëppeelu ca immeuble ba tànk ba neer tanga ndax fi mu nekk nii dañ ko rek daal di yeew ba mu dëgër ngir di koy euh, facc leneen nit nga xam ne danañ ko àddu rek mooy benn tailleur ci géejawaay la démb daal daa jël a péreb ciseau daal di ko sànni xamante ne mooy cordonnier la lu ko waral mooy cordonnier bi moom daal dañ ko doon palper eh, police ñëw di xool ndax am na la ñuy terim déet mu daal caame xuloog tailleur ba tailleur ba daal di kaa jaam fi mu nekk nag eh, jël na rek ab daw ñu ngi koy wër bopp ba tey direct news ñëw ci li nga xamante ne nag moom mooy équation bu yaatu bu njiitu réew bi Macky Sall ñoom mu àndal mel na ni nag fi mu ne nii faaw ñu soppiwaat faaw ñu deferaat fi mu ne ku am sëriñ na nga dem ku ko wutul it na ko wuti ndax lu ko mooy rek doo bokk ci gouvernement ju yees nga xam ne ma Sall njiitu réew bi bëgg na ko teg ba tey ci ëtt yéenekaay bi di Libération mel na nag li nga xamante ne nag mooy euh, soxal FMI àdduna jëmale ko ci ki nga xamante ne rek moom mooy waaye ONAS ñoom daanaka taxaw nañ temm ni faaw rek ñu daal di am yu bëri yoo xamante ne danañ ko seet danañ def seen kéem kàttan ngir avril gi ñuy dëgmal la ñu daal di tàmbali lépp li nga xamante ne dafa jëm ci defaraat canalisation bi ngir rek taw bu ñëwee daanaka duñu ci ndox pëtt na fii wala kenn mënta dem ab bouger la la ca mën a am solo rek te ñu war kaa mën a waxtaanee rek mi nga jëm ci le soleil yéenekaay moom dellu ci ki nga xamante ne nii moom moo di Amadou Ba aha nii la fu lay jaay Dakar faaw nga wane sa bopp dafa jot bu leen demee ba ci kuréel gu moom mbootaayu xeet wi ngir daal di àddu jëm ci conseil de sécurité yi faaw ngeen xam ne yéen fi nekkal Afrique moo tax it nee na jot na ngir Sénégal wala it a toogee daal dalal ah dinañ rek amal ab waxtaan ju yaatu ñoom kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk Afrique ngir xool daal mbir mi fa muy mujjee leneen it dinañ ko àddu jëm ci wàllu record yéen kaay moom Sadio Mané nee na bu ko gënaloon dëgg mooy mu daal di jël coupe bi ne wëy ñoo gagné waaye comme que jox nañ ko ballon d'or africain rafet na waaye li ko gënal dëgg-dëgg mooy mu daal di ko tàmbale fii ci réewam bii di Sénégal mbokk internet 221 yi lii moo gënoon fës ci li ñu leen doon jukkil ci ëtt yéen yi ba suba incha allah